Maria euh, jaar nga fu nekk c'est vrai def nga ay télé euh, def nga ay rajo vingt ans de carrière et tout euh, mais depuis des années ñu ngi la gis nga des 7TV nekk 7TV déjà sa intégration 7TV lan la woon. 7TV damay remercier d'abord Serigne Assane j'ai l'occasion aujourd'hui Serigne Assane Xuma moom ma boole ak Maïmouna Ndour Faye donc quand je suis venu la voir ñu waxtaan ak yooyu mun a son problème c'était est que Maria dina ñëw wala du ñëw. mais man doomu séeréer la sama yaay séeréer la sama papa sama maam bi jur sama yaay séeréer la c'est ancré en nous normalement boo waxee boo deewul da ngay def. ah séeréer moom daa sàmm ay kàddoom de. ma waxanteeg may mën a Ndour Faye que j'apprécie beaucoup c'est ma sœur je l'adore may mën a su ma fi nekkatul woon cette TV sax keroog laay gën a bëgg may mën a Ndour Faye. parce que en fait moi j'ai intérêt TV boobu commencé gu ñu diffuser. ah non je pense que dañ boobu man wax nañ ne peut-être man maa fa njëkk bu njëkk njëkk nekk cette TV man lañ fa njëkk recruter mais mun a loolu lay wax d'habitude donc foofu suma kër la xam nga am na yoo xam ne moom jarul sax nekk di expliquer suma kër la ba pare may mun a nekk nit boo xam ne elle a cru moi xam nga chance bu ñu am cette TV. Hmm. mais may mun du xeeb kenn. ça c'est vrai. tu vois ngay gis benn émission man nee naa leen ni ma leen di tooñee chaque jour man ne ko l'invité de MNF rek laa defagul ci mais on m'a fait toutes les émissions ak 7TV euh, beneen bi nu mu tudd 7. 7TV euh, beneen bi. 7 euh, politique 7 7 politique. parce que xam nañ ne je suis nul en <laughs> mais bu weesoo loolu j'ai fait presque toutes les émissions sur la 7TV ndax lan may mënoon dul fay boo ko waxee mu ne joxal diw te elle te confiance. man àdduna bi gis nga ay Aïcha parfois di nga am opportunité wala nga am te te ci biir sax booy liggéey di nga gis loolu la neex di nga gis loolu naqari di nga am opportunité di nga am occasion wu dem mais day am lu lay te man nag wax dëgg yàlla parfois yëg bi day gën respect bi dafay gën opportunité wala occasion wu dem te respect tubaab dafay faral di wax ne quand le respect n'est plus servi bu la nga jóg dem. waay foofu nag alhamdulilah. moo tax maa ngi 7TV pour accompagner ma soeur. Hmm. parce que 7TV c' est une famille en famille il a une belle ambiance. boo xam ne on peut se dire tout. tout ku def naka su dul noonu ñu ne la li nga def du noonu ñu waxtaanee ko et tout mais mu ne aussi elle n'a pas froid aux ba pare mu nekk jigéen nag nekk jigéen. bu gëm boppam bu gëm jigéen ñi kon je suis là. tu pour soutenir ta sœur. je suis là bu ngeen ma may ngir yàlla mu choix dañ def affaire animation léegi léegi léegi ce qu'on